salaamaaleykum salaamaaleykum jaajëf yéen ñi nga xamante ne di seetaan mooy di di jox seen émission kaay leeral bi nga xamante ne comme souvent boo koy amal di leen ko jox di kontaan ñëpp ñu kontaan et su ko defee comme ni nga xamante ne loolu ko defee ak artistes yi nga xamante yu bëri bëri tey nag xamaat fi beneen daanaan beneen Baye Fall nga xamante ne yaakaar naa ne bu nuyoo di kii mooy kii nag moom mooy Waly Gueye nekk benn bayfal boo xamante ne dafay def musique world bu am solo boo xamante ne yaakaar naa ne tey moom yéen ñi xol dina tooy. incha allah su ko defee rek mu daal di nuyoo ñu dugg ak moom ci waxtaan yi mu a leeral lu salaam. wa rahmatulah. war a ñëw leeral mu waaw alhamdulilah yàlla si yàlla jafal boobu. ay ci nuyu gars yi. bisimilah. walay, la ilahe illallah, digi digi bay, Aziz Modu Mustafa. Walay, la ilahe illallah, digi digi ba'yval Aziz Modu Mustafa. Sa digi digi digi digi digi digi ba'yval ba'yval bay valga, bay valga, Aziz Modu Mustafa. Vai, valga, vai, valga, vai, valga, vai. Faz em mim um samba. Bismillah, tem mão em mamãe, vai, fala. Aziz Modo, Mustafa, vai, valeu. yaa dund sa maam booy maam Cheikh Ibrahima Fall sagal nga sa baay Moodu Mustafa Fall ku mel ni yow ci réew mi yaa fi raw yaa nu du yow yaa nu defar kenn du fi yow Fall sigil nga sa maam booy maam Cheikh Ibrahima Fall sagal nga sa baay Moodu Mustafa Vai fala de leão Diggy diggy man Diggy diggy bye, bye, De falo no Degi degi mango Degi degi bai fal bai fal wow Ya fal mugo Baya dis fayo Kui samambo Mamkadim rasulilahi Naina makfal Baya dis fal Kui mambo, Mam Sheikh Ibrahim fal Lidoina makfal Baya dis fayo kuy samaam booy maam Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye jaami Bamba Sëriñ Aziz Fall kuy samaam booy maam Cheikh Issa yenn borom jenn ak la gën fa ñu la neexoon dëkk di seexu waaye defoo ko Baye Fall nga doxee moom nga dundee Aziz Fall bilaay yaay géy ne yow lu yàlla mooy fay I am fay ñëw Aziz Modou Moustapha Ba yaay gay neew yaa doon sama ndooy maam Cheikh Ibrahima Fall sagal I malin mo Wani no na mani de ya ni mo Ilai yo ambaram yo Ilai yo ambaram yo Ayani mo magano malin mo Mani dundag mani deo Yani mo Ayani mo magano Malin mo Mani dundag mani deo Ayani mo Defang yame Mogan fang unyele far Aziz mo dum Mustafa Faryado Fang yame Mogan fang unyele far that is Modu Mustafa. Ibnu Aziz Fa. Naru yaay bintu jeen doo seen maas. Ibnu Modu Mustafa Aziz Fa. Naru yaay bintu jeen doo seen Ayaani moom mu gën loo maa bu ñu dund ak bu ñu dee yëpp daa ni moom. waaw loolu am na solo tam la maanaam su ko defee ñu ko yóbbantee képp koo xamante ne Baay Faal nga suñu xel ndeysaan lay dem ci suñu sëriñ boobu suñu baay bu baax boobu nga xamante ne mooy Baay Aziz Fall dafa mel ni xam naa ne dama lay bàyyi rek nga am loo ci sànni parce que nag ndeysaan yow da nga di Baay Faal. dëgg la alhamdulilah rabbil alamin. Baay Aziz. alhamdulilah rabbil alamin. su ko defee ñu koy ñaanal rek mu tëdd. waaw nekk loo xamante ne lu gën ci moom la. waaw loolu si kawul loolu moom rafet nañ ci njot lool. ndax ñun ñu moom ci liggéey bi xam nañ ci bu ndax sëñ bi que dañ koo fekk moom ci ndigal yàlla dugal ñu ànd ak moom waaye mos na wàcc ci ndigalam barki Modou Moustapha Fall moom kay dañuy ñaan yàlla nañ ko yàlla fayal moom Aziz Modou Moustapha Fall yàlla nañ ko fayal barki maam Cheikh Ibrahima Fall waaw waaw di ki fi bàyyi bi sëñ Moustapha moom mooy taawam sëñ Moustapha nga xam ne moom jàmbaar la moom ci yoon bi doy waar moom it sëñ bi mosu koo jàppee ni doom moom daa mel ni doomu sëñ bi ñu bëri si kër gi sax mënuñu ko ndax moom liggéey na yëpp ci tool yi la woon ak la mos a nekk sëñ bi moom daal sëñ bi teetal na ko ba mu xam li ma leer mooy doonul la làmbatu moom moom moom loolu wóor ko waaw sëñ Isfaan moom bàyyiwuñu kuy ko loolu moom wóor moom may sa ñaat yëpp rek sama gaa yëpp képp si jot ba déglu si rek mooy ànd ak moom ndax suñu génération daanaka waaw kon moom ànd ak moom liggéey sëñ tuwaat maam Cheikh sax day neex waaw kon yàlla na sëñ tuwaat taxaw taxaw ko moom moom muy attan yenam bi yàlla na oyof lool ci moom barke moom Moussa Fall jërëjëf wala tey bu ko defee ñi xamante ne ñu seetaan ñu bëri comprendre ñu kan mooy waa liggéey dëgg la amoon na fi ay temps génnoon nga fi def benn album bu am jékki-jékki dëgg la mën nga ñëw fan nga nekk waaw maa ngi fi nag maa ngi fi woon mais xam nga liggéey moom mooy boo liggéey bi doxee dëgg maanaam boo seetloo gars yi dañ lay sollicité. waaw moo tax bu ñu bu fii bu bu mën toog lu yàgg. gars yi dañuy boo fu ne ñuy déplacé wu xam nga loolu ne boo xoolee si YouTube da xam ne néew ñoom fii sax ñu génn Sénégal ñi Afrique la ñu ngi ñu ngi ñu ngi liggéey daal. ñu ngi si liggéey bu baax. waaw mel ni kon am na yeneen affaire yoo xamante ne instant bii yaa ngi koy waajal. ñu tàng jër corona bi kay dañoo dimbali dañoo dafa permettre ñu répété waat xoolal bagage yi bu baax ndax jamono yi amuñu woon jot dara. amuñu woon jot. moom waaw ñun moom bokk nañ xamaan si ñoo xam ne moom. may nañu tuuti plus ñu ñaanal suñu borom moom jëlee ko fi ndax maanaam euh, téye na ay yitte yu bëri. ñaanal tuuti ci yëpp rek ak àdduna bi yëpp rek. maanaam suñ suñ suñ suñ tuwaa moom koo xam ku ne xam nga ne buy ñaan. moom yemul ci jullit yi àdduna yëpp la ñaanal. kon ñun tam ñu roy ci loolu rek ñaanal ñaanal àdduna yëpp. waaw ñu gëm a gëmul rek waaye na feebar bi jóge rek ba ñëpp am jàmm. ko defee wàllu gi yow nga expliqué tuuti ak hmm. man nag wóolu musique laay def man musique yëpp laay def waaw musique laay def donte yàgguma ci musique noonu mooy sant nag sama waajur bu baax Babacar njaay bi maa dal ni moom international la. waaw amaana moom bu ma gis woon tey mu ñaaw. Hmm. ndax moom ci bëri moom moo ko jàpp moo moo ñu teete boobu ba léegi jàpp si liggéey bu baax ndax ku la gën a yàgg ci bagage moom da nga koy woowee njool baa ne ko mag waaw boo ko magee it da nga koy jox ci gën a yàgg moom daanaka xale bu ndaw la commencé musique man bu ma dama ak maam Cheikh boole ñu ndax moom loolu lay bàkkoo bés bu ne moom maa ngi yow sëñ Tuubaa moo ñu boole ak maam Cheikh loolu seen sama xol loolu moo du ma ko bàyyi mukk dama ko jàpp ni si ko ma bokk ndey ak bàyyi ak maam Cheikh Ibra mën li muy def trop ndax li nga gis nii keesam bii mu yor nii mooy ki ko fi njëkk dugal fii moom moo fi njëkk dugal Zeyna ak gars yi ñu bëri nag ay Viviane euh, yi ab liggéey lay diree entre ñi gars yi ñu bëri. ñu si bëri ñoo xam ne ko may suñu temps bëriwul. waaw mais moom daal ku ko xam ne yi xam nañ bu baax. léegi nag maa gis télé gars yi ku ne di jóg di royantu di toppandoo kanam waaye moom boo déggee xam ne moom bagaasam la. ak suñu bagaasam la. bari bu ci dal mom moy gaynde gi bo andal hmm. da ngay andal ko xamante ne xam yoon bi deug la deug la hmm. ma sha Allah alhamdullilah da nga deg ne xam nga am na ko xamante ne mom nga fay tek ak wër yow nga doon talibi bo xamante ne hmm. yaa dina wut la ko tek ah waaw waaw waaw waaw ku la mak day ko woyé mak mak waaw waaw waaw gis na ne lay tegal fi nga tek fofu waaw waaw mais lo moy and and kat bo andi and mom te mo am kenn mëna déggu sa morom jaru ngeen and kat waaw te mom dafa mérite lool dafa mérite lool lool ndax maam directement ci musique mm-hmm. boobu ba léegi mm-hmm. groupe bi nekkoon ñu bari lool xëy suba gars yi affaire yi xaw a Sénégal xam nga rek mm-hmm. Sénégal loolu àdduna yëpp la boo xawee coow da nga gis ñu a utal ku ne ut sa waaye moom mosul daw ko woo ci dara ba mu ba mu gàntal yu mag ñoo xam ne ni ñoom ñoom ëpp bës fu mu toll nii gars yi xam nañ leen am nañ xaalis bu bëri lu mu fay am amaana man du ma ko loolu mun ma koo fay mau kau kayak kau merenya rek kau sih main buaya mantan mang kayak nyala ber lim bëgg ci aar bi am na kaw jotam te ñu ànd ko it kenn bañ a sama robar sëñ Fall yàlla suñu borom sàmm boobu mosu seytaane ak sëñ Tuubaa amin am ci ñu ngay def bu doon affaire boo xamante ci ñoo comprendre nañ ko ci ñoo comprendre en général ngay def def mais souvent ngay ci milieu quoi milieu muy toutes les semaines nii même ak si biir corona bi sax gars yi ñu doon woo ñu gérer affaire yu sew nii. xam nga kon foofu suñu suñu base la. ñu bëri boo xam ne bu ngeen di gis ay reer ak yooyu ñëpp foofu la nekk. bu ko weesoo ñu ngi somon un partout ay efficaces saint jean Dakar tamit un peu partout tradition tradition xam nga waaw waaw ñu ngi kii ñu koy enjoy amul fenn fu may dem naa lay wax ni li ma si gën a yëm mooy olof la ñuy wax ak français. dinañ dugg si anglais mm-hmm. mais tubaab bi sax a apprécier li ñuy def. tubaab bi bëgg nañ yëpp tubaab bi ñoo imposé pour ñu ñëw. parce que bu ñu dañoo fay dem ñoo ñoo ñoo fi nekk comme apprécié kon gars fa def ay demande demande. Mm-hmm. mais yi si boobu ñoo ñu laaj ñu. ok su ko su ko defee souvent foofu lañ trop te gis naa nag bu ñu ko yombalee dinañ yàq lu bari. commencé na kay. waaw ah, léegi yow lan ngay wax foofu tuuti. kon nag damay bàyyi Babacar Ndiaye mu wax ko mu wax si tuuti parce que moom daal xam nga dama bëgg moom mën naa see tontu. mais man dama na loo xam na moom a <laughs> ñu ngi fa cent mille wala trois cent mille. Mhm. léegi booyee benn boy jox ko benn quinze mille sax mu jóg gitaaram toog fa di wuyu ko a gëm seen bopp. dëgg la a fonk ah, nga roy du nduróog pire. Mhm. bon soo xoolee musique fi mu toll nii Sénégal dafa dafa yàqu comme ni nga ko waxee noonu rek. Mhm. soo xoolee tey Afrique nigérien yi fi ñu yegg ci côté musique. ba ci rap américain bi sax dañ ko xawoon nëbb ndax lan produit bu baax bi ñuy def mais léegi fi ñu toll ni ci Sénégal mooy que ni musiciens yi liggéeyatuñ liggéeyatuñ jobatuñu léegi donc noonu loolu nekk na luy gën a yàq musique bi milier yi ngay dem jouer restaurant yi yenn boîte yi soo ko yóbbu musicien mu jouer te xamul li muy def lan la gan yi ñëw di déglu loolu dañuy li ñuy gis mooy réalité bi est-ce que lii moo am Sénégal fekk loolu amu fa kon donc ni gars yi ñoo liggéeyutul musique bi soo xoolee léegi li fi gën a dox mooy di gën a bon comme la non lu gën a dox man damay déglu ku mel ni euh, ay mais ba ma ko dégloo benn ñaari yoon dama vraiment ah, am voix mais comprendre tey soo xoolee euh, Seck soo xoolee les ci concept bu mu nekk yu bëri nii pour ñoom dañoo pour ñoom damay toog léegi ci jotaay dégg ngeen booy non bi day et puis bi

booy ci bëri yu wéy fii nii nii tey ko tey koo ci oo barke Serigne Touba da jëma plaqué accord mënu la wax accord bii ban accord la wala du wéy ci justesse du wéy ci gaam xam nga fi am mooy lan mhm. musique bi dafa am ñoom ñoo ko yàq man tey dama koy wax Sénégal yëpp ne parce que li ma wax mhm. ma ko ku ma oo dama koy wax ku mel ne ay ñoom Papis Konaté ak ñeneen consort bi ñoo yàq musique bi parce que mënoo yow tey ngay jël benn booy boo xam ne fee day ñëw am na voix bu neex rek nga ñëw après arrangement benn gaam tegal ko benn xam nga benn accord mu wëy ci accord bi après mooy loolu dem même produit yooyu nduroo hmm. Sidi Diop la muy wëy ak kee la muy wëy ak keneen la muy wëy moom ngay dégg même chose mbalax boobu mooy tournir loo déglu tey jii musique boo déglu ci mbalax bi tey soo dégloo Sidi Diop mel na ne déglu nga tar xaw ma fat tarba lañ koy wax xaw ma tarba mbaay mel na déglu nga caat sekk waaw mel na produit boo ci dégg dafa mel ne même chose ngay déglaat loolu du avancé loo musique bi dañoo war a xoolaat suñu musique bi Sénégal pour mu mën a dem fu sori liggéeyaat quoi liggéeyaat. bañ a yàqam bañ a yàqam ci. ok donc ñu ngi kontaan ci loolu introduction bi am na solo parce que moom lu tax mu wax ci. Mhm. da cee war a wax xam nga lu tax nga war ci wax. Mhm. parce que comme ça dañ ko waxee ci ci ci jëndat bi. Mhm. international nga. yaakaar naa ne tëggal nga artistes yu bëri ñoom yi seetaan xam nañ la xam nga leen. xamante ngeen bu baax def ay festival yu bëri en Europe yu bëree bëri tournée yu bëree bëri. xam am expérience bi aussi. ok. kon yow boo waxee da ngaa war a wax. damaa war a wax parce que lii li tax ma jëlee woon ko Espagne dem toog Espagne pendant des années di ko liggéey. indi ko fi bëgg naa gën a yokku maanaam ci art musique sénégalais bëgg naa ci gën a montré yeneen bagage moo tax carrément bi ma indi ko maa ko njëkk a indi Sénégal. billaahi. ba ma ko joué c'est là ko commencé promouvoir ñëpp commencé mais barki dama la ko mbay Gueye fay joué. maa ngi toog da koy joué nit ñi di ma woo. eh Babou Boye Mbaye ngi joué carrément man leen turba la. Mhm. turba la. mbay su toogee ci caron joué ko ak turam bi ko yàlla may ni tey ji day day day yomb fës caron bi day yomb mu fës mais caron man la Babacar Ndiaye man la sani maa ngi koy joué jërëjëf moo trop dëgg la mu gën a baax dëgg la ok ndeysaan da nga baax da nga baax ma non yow sëñ Fallou yow ah, sëñ Fallou yow moom sëñ Fallou moom non sama morso saa ñoo koy bokk ah. cameraman. waaw oh, li ci Is Fall Mourou Moussa Fall kon mooy yaakaaram tey ëllëg. dëgg la waaw yàgg ak sa moom Moussa Fall. away. Soon I'm going. Mamgalas bayumen kimani yalala. Wayang mawayuway sumambo. Mamgalas bayumen kimani yalala. boy. Eh. mooy sunu maam mooy Sénégal njaay am ngeen ndam sunu maam mooy Sénégal njaay am ngeen ndam sëriñ Fallu yàgg nga daan ngalam bi sundaan ngi lay siyaare toog ci jal wi daa dajeeg ne koor weer leen di wi ba tawat gi réere ñëpp naan ko mbaaki jëm mi xew te fekkee ñoo ngi ñaan nga tekkee fitna ji woote dëkk Mbàkke yaasa lii di ay jaloore wayal ma way ñu way suñu mam booy mam galas baayu mbéem kéemaanu yàlla la wayal ma way đúng rồi xuống những năm rồi sẽ ngày càng dài hăm ngàn năm xuống những năm rồi ăn ngàn năm semua bohong moo defar murit yi jàmm jeeg yu neex yi ba waral murit yi mel ni ñuy xawaar gis for yi ni sol ake yaa ñu koy jalal ko ci na muy sol léppay balare ci néegu ñax dem nan

Diko re re re re re re. Diko anye. Diko yo. Diko re re. Yoga diko sring bakye ya say. Sumagay ni ne. Yes, kill him, man. Galas by you, man. Yes, kill him, ma Tohala, more way. La, begin, man. Kill him, man. Galas by you, man. Badara ni leen ko Alioune Badara Badara Badara ni leen ko Alioune Badara Mam Abia Abia Abia Abia Abia Fekina bayam ba Musa Jindi def ni gindi weeru gindi laa xamal la réew mi ma gi mat naa ndox mi war naa juróom ñaari soro yomb ci réew mi ko dere ko dere ko añee ko añee yow ko nekkee jotani ko Sëriñ Mbàkke yaa sañ Galas. jërëjëf Galas bàyyi loolu sëñ Fallou mu toll moom mën naa ne. sama sama néeg laa toog ngi ci kaw lal bi. Mhm. sama saa ngi nii sama noonu sama ginnaaw defar café may toog di foofu si gitaar bi ngeen di foofu. jéeg-jéeg rek mu mel daal. Mhm. dañ moom amaa sëñ Fall moo namoon moo moo woyal ko boobu moom barki moo Moussa Fall. bi ma tàmbalee maa tàmbalee ñaari baara sama la woon ma xam ne moo sonal. ma mhm. woo Babacar tamit defal ko ci saa mhm. ma dikkee moom xoolee béykat ma si jël yu ñi am na ko fi uh-huh. jël rek. yokk suñu li nga xam ne ñun mooy suñu mbégte ci moom ak li mu defal. parce que na ko sante. exactamente loolu dafay am solo. comme comme comme loolu toog di xalaat. xalaatee parce que souvent damay gis ñu ci bëri bëri dañu yaa leen di bindal waaw dañ leen di bindal ñu ci bëri bëri mais texte yi nga xamante ne moom ngay déroulé. man sama morceau yëpp maa ko bind sama bopp. tabaarakallah. wallaahi azim. amul lenn lu ma ci triché yëpp maa ko bind sama bopp. def arrangement yi boole ci arrangement yi ñoo ko def yëpp maa ko def sama bopp. d' accord waaw moo tax seen couple nee naa la daf may neex. duo boobu dafay am solo. liggéeyam nga ki nga xamante ne dafay xam mm-hmm. dara dina teg ci piste yi. Mm-hmm. dafay am solo tamit nga nangu quoi. Mm-hmm. parce que aduna ah, hmm? kuy jàng moom bëgg moo ko hmm. la. waaw nangu ñu jiite la. ku am xam-xam. waaw taalibe ngay tax muy waxee nii. dafa mën li muy def. dëgg la alhamdulilah mais ak taalibe xam nga musique moom partage la. Mhm. moom da nangu nangu ñu boole. Mhm. mu am lu mu cur quoi. mais ndaanaan la. alhamdulilah xaj na sax euh, ak corona bi nii moo waral mais am na lu doon préparé lu mag loo xam ne ni heure bi nii sax euh, amaana waruñu foon fekk. mais ak corona bi nii ñëw rek. mbas mi waaw baare lu bare bari. léegi mu nag aussi ngay koo xam ne ku comprendre musique. dëgg la et puis nga nekk koo xam ne tamit yaa ngi dox ci waaru musique di yëkkati musique sénégalais. parce que concept yi ngay def nii ñëpp a koy rafetlu. kon yow dañ la war a maanaam macha allah daal li ko li ko ni ko naar bi di waxee marax ba. waaw dañ naan allah marax ba macha allah dëgg la. alhamdulilah. dëgg la gis naa ne yéen a ngi koy rafetal macha allah. dëgg ah. la nah, mun ngaa ñëwaat feneen parce que man damay namm yooyu quoi. ci bëggee waaye. waaw yi ñu ñu koy may képp na ko bëggante rek ba sëñ ak ku bëggul yàlla nga teg sa sa waay. yàlla nga teg sa sa seytaane comme ni gars yi di waxee. ma koy may man tam sama chéri ah. ko ah. kan. sama chéri bopp Aïcha Camara. ndeysaan di ci fasaale Marie rakam ja ak képp ko bëggante rek. fasaale sama rakk Mata Gueye ak chérim alaaj Njaay moom Babacar Njaay ak chérim yow maa ak sa chéri sëñ sama waaju baax ji dama ne man bi tur naka la góor Karim Aliou Seydina Aliou kon ñu si fasaale ñëpp sëñ Fallou bismillah agreado, agreado, agreado. C'est agréable, agréable, agréable. L'amour da vaneta mera mera mera mera e aí vai vai em você da vaneta merda, merda, mera neex a neex baay booy mayeen mu sëy waay jege jege international national ni la neexee sama xol bi yaa ci nekk yow yaa ci may My feet, fix yow yaay may dalal suma merey yaay give may giifal yow yaay may darling. agréable, agréable, agréable in the world. C'est agréable, agréable, agréable, l'amour. Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, Rane, vai boy, maile sei, vai. Devido ganhar internacional. Sama holbi, yajine, yung yai que me begang, yai ki may gole, yai ki Ivan, ibang, yung yai ki may Sumangalay, yay ki may kipan, yow yaay ki may danan. Te dëgg la yow sama Sadio Bar, yaay sumay keseng keseng li moom, dama koy bàjjal. Te dëgg la yow sama Sadio Bar, yaay sumay keseng keseng li moom, dama koy bàjjal. Te ba gëm ni la neexee.

ca eh, ay bëggante la wat ko yoon wi ay la mu doon ndaxte jigéen eh xoolal gisal yaa ko war a baax ay bëggante la doxalal ay noobante la di jëma dundu leen loolu dëgg la man de gënal na ma xiiroo gënal na ma ñaawoo dundu leen dundu naa Ablaye baay ngalaw waay bul gomle la respecté baay ngalaw waay bul gomle wow wow thấy nó vẫn hen à. lấy ra đu lên đun đun nào chim bạc ghê thấy bạc gần kia là wow wow thấy bạc à. à. gần kia là lại ra đu lên đun đun nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ñam gën yaay du foofu bu dee day neexal sa xol téyel bu baax ndax ndigal baay yàlla la bu dee day neexal sa xol téyel bu baax ndax ndigal baay bu yàlla la takk ci ri xoolal kay nga takk ci ri soo bëggee loo fekkee baj ko nga takk ci ri ñaawal

بالامل الحمد لله الحمد لله ان شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله comme ni mu ko waxee. Hmm. sëriñ bi moo leen boole. dëgg la sëriñ bi moom bu leen boolee rek lépp dëgg la. soow ak suukar la. waaw hmm. ok mu leen tàqal di jaxase rek. waaw jaxase rek moom <laughs> comme si. <laughs> jërëjëf waaw jërëjëf waaw. jërëjëf jërëjëf. kontaanee bu baax a baax. parce que tamit lii la quoi. Hmm, yéen ñi nga xamante ne yéen a mag gaay gën a xam gaay jël seen xam-xam di ko mottali dafa am solo. dëgg la sànq ni nga ko waxee tamit jàng bi moom mënul ñàkk. xam gaay yi di gën a jàng. parce tamit da ci am solo. jàng jàngaan boo moo ko lay bersa daara dëgg la waay tamit da ci am solo. wér na yow it nga doon taalibe rek comme ni ma koy waxee. alhamdulilah doon dong di jàng rek. alhamdulilah rabbil alamin. jàng rek jàng jàng moom li sëñ Tuubaa waxoon rek man mm-hmm. noonu laa ko jàppe ci lépp lu may jëf seen saa boo juddoo wàcceetu la ba keroog ñooy tegal sa kus baam kon amul bàyyi amul bàyyi déedéet waaw man maa ko bëgg quoi ndeysaan man maa la koy ñaan waaw bisimilah yow ñoo far waaw ndeysaan alhamdulilah loolu mat na suñu xel suñu xel ñaawuñ si njot mukk est-ce que waaw ndeysaan ndeysaan dëgg la Fall ñu xam ne. Mhm. waa laa ilaaha لا إله إلا الله لا إله إلا الله فاليقى مصطفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله مصطفى لا إله إلا الله الله بلابال منفال دول بيفال أكبيته لا إله laa إله إلا الله bu mujj bi waaw di ñaan sëriñ Aziz Modou Moussa Fall suñu borom fayal ñu ko ñaan suñu borom taas ñu ci barkeem tey ñaan si jëmmam jooju xam ne moom lañ ànd ak liggéey ba suñu borom woo mu wuy ko waaw yàlla nañ ngërëm ànd ak moom ci bés boobu tamit ànd ak ubbeeku Baye Fall yëpp ak kullu mos a ànd ak moom rek yàlla na ànd ak tawféexu sëriñ Aïsima Modou Moussa Fall ndax ku dajëk tawféexam moom barki Modou Moussa Fall fii ak ba fañ jëm jàmm ko defal suñu liggéey bi moom barkeelal ko moom waaw ndax lépp ci jub rek ak lépp luñ ci am parce que lañ ci liggéeyal sëñ Tuubaa ak dimbal suñu njaboot ak wéy ñun waaw ñun ñun duñu ay fookat kon kon yàlla sëñ bi boom waaw yow moom xam nga mooy li muy wax sax rek jàmm yàgg fii yaa ngi dégg jàmm sax fii suñu réew yàlla yëkkati lépp xéwalal lépp waaw yow it nga am ndam mm-hmm. waaw ñu lay séntu fu sore sore sore mm-hmm. ak say caméraman vraiment yal mm-hmm. na yàlla def xéwal musaawan baawaan waaw jàmm waaw ah, du ñaanal fii itam bërëb bi waaw ah, bërëb bi ah, Widish Vision Widish Vision production audiovisuel reportage toute cérémonie man moom naa si def sama waay bu mu mat fu ma déglu baax naa fii man sëñ Fall naa ñëw naa ñëw. Mhm. waaw di ñaanal tam di jéemaa comme ni ko Babacar waxee. xel day fatu ndax yow moom mooy ñaanu nga bokk si mooy ndax maanaam gis nit muy def dara mu neex la mu jar nga jëlee ko jës téléphone ne ko kar waale man damaa bëgg nga ñëw mu woon la affaire yi bu bees yi xool neex na loolu maa yàlla na kaw sa njort nag yow sa biir yow barke sëñ Fall jërëjëf jërëjëf. amoon di gërëm waa liggéey bu a baax jërëjëf a baax Saliou ak Aliou sama si machine bi yéen ñëpp ñaa ngeen def waay ñëpp ñi nga ne seetaan di leen wax jërë ngeen jëf jaajëf